xasida googu nga wax léegi wasiltu rubox dafa am waxtaan woo xamante ni maa ngi koy waaj pour def ko ci OMTV te defar naa moo war a topp ci wakkaana xàqan bi suma ma juumul lenn daal danaa la ci mën wax moo di ku mbiram sottiwul du ko yor ku mbiram sottiwul du ko yor boo boole ki ci kàggoom ku kay kune ku ne sañ ngaa kitaab bokk na ci góoru yalla yi ndax nenañu sa yo ko masalan nga jang ka altine ba altine dellu si sa cër yëpp duñoo andal di sabbal sun borom moom wasiltu rubuh sa yo ko jangé bis ba nga jang ba bis ba di delu sa cër yëpp di di sàbbaal borom te ki ko jàng saa yoo ko jàng ku ko jàngul ëpp nga ko junne dara ji ci jamono jom ko jàngit ma wasiltu rubox foofu laa ci yem ndax leneen luñ ci bëgg waxtaan moo tax